maa ngi leen di nuyu di leen di jaajëf bu baax euh, amaat euh, kontaante ak mbégte bu baax a baax a baax di naan euh, ku nekk nag di lay jox sa loxo di naan la jàpp sañ ñaari loxo di lay nuyu bu baax a baax amaat kontaante niñ koy def. tey nag ma fa yéene dalal sini sëriñ di sini seex comme ni ma koy wooye kii di Baye Barham boroom jaaro bi ak Baye Assane Touré. ñu war a waxtaanee ci lépp lu bokk ci xam-xam ak euh, actualité réew mi ak ni mu tëdd ak jamono ji léegi damay bàyyi ñu nuyoo bàyyi Assane ñu bala nga nuyoog mbokk internet bi. waaw alhamdulilah alhamdulilahi allazi taqaddasa fi lqaybi lxaaxut almutajalliyaati bi asmaihi wa sifaatihi fi xadrati llaaxut wa bil asraarihi fi xadrati ljabarut wa bil anwaarihi fi xadrati lmalakut wa bil ajraam almutasakwilaat wa suwiraat fi xadrati nnaasut allahu allazi jaala lakum al ardal qaraara wa samaa binaan wa suwarakum fa axsana suwarakum wa rasaxakum min attahibaat wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki addina bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk nuyu bi gën a tedd ci lislaam mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf euh, Baye Assane Touré ñu ngi lay fay bu baax aca joxal ma Baye Barxaam mu nuyoo moom it aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim qul wallaahu ahadun allahu samadun lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahadun asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk julli mhm. yëpp di nuyu mbokk taalibe di ziare waa àdduna bi yëpp di ñu nekk fii Sénégal ak ñu nekk bitim réew ñu ngi ziare jëm macha allah mhm. jërëjëf euh, Baye Assane Touré jërëjëf euh, Baye Barham borom jaaro bi ñu ngi leen di fay bu baax ginnaaw seen yooyu seet yu sell yooyu noonu te ànd ak dal ñu ngi leen di fay bu baax a baax euh, balaa maa tàmbali nag daam fu may tàmbalee tey nag dinaa dal ci seen kaw de waaw su yeboo ngeen meree ma nag du ma ne seen kaw nag yéen sëriñ si laay wax euh, waa bitim réew kalaame nañ ma ci yéen mu di yéen sëriñ si yéen nag bokk leen ci ndax yéen moom ñu ngi rafet lu seen liggéey bu baax a baax a baax lépp lu ñu jëflanteek yéen woon ñu ne gis nañ ci tawféex li ñu leen sant liñ ko waxee da ngeen leen ko koy defale ba mu mat mais ñenn ci seeni mbokk dañ leen di ñaanlu au lieu ñu ñaanal leen ñu jël seen xaalis récupérer ko te duñ leen ñaanal. dóor leen sëriñ si dóor si ñuy def ngeen wax ci. waaw alhamdulilah alhamdulilah yaa ngi laaj loo xam ne lu ma ñaawlu la si jamono ji ñu toll nii parce que damay jàpp ne julli gis julli julli mbokkam. Mm-hmm. sa nit ku jaaxle xamul fu mu jëm dugg si YouTube bi rek gis la tey xamula suba am am am si yow yaakaar gannaaw yàlla yonent bi ak ngi ñaan juróom dëgg la wala téléphone wax ak yow soo mënoon ne la mënuma soo mënee nga def si yàlla tax. chaque fois man dama am bari yu may jox sax man mi ngi wax nii dañ ma koy wax mais déclaré ay sëriñ mais soo may wax toujours dama naan man na ñu euh, jërul may xam seeni tur parce que jëf ju baax soo koy def doo ragal ko la su fekk du bañ nettali ko du bañ ñu fay la ko mhm. waaye jëf ju bon soo koy def mhm. da nga ragal ñu nettali ko da ragal ñu fekk la sax dañu ragal ñu fay la ko kon def lu baax moo ëpp solo moo tax képp kuy def loolu na ko bàyyi parce que Modou Modou yi vraiment ay julli leen ay doomu aadama leen te Sénégal ne comme ñu fee bàyyi seen i njaboot bàyyi seen i famille dem daani doole lu ñu naan jàmbar daw dafa daani doole pour ñëwaat si réew waaye yow mu nekk fii nag xëyoo gontoo xam-xam bu nga yor la yàlla may yaa si siy ñaan ñaan leen si ñoom ñu ngi foofu dang-dang guddee bëccëg police di leen dàq ñii suñu añee ñamu sedd la ñuy lekk suba ngoon guddee bëccëg nga nax lay lekk sa xaay nga yaakaar ne du la jig du la jig mënta nekk sax parce que man lu ma gën a ragal si àdduna bi mooy xaalis muur muur parce que ñoom ñu ngi amee xam naa ko xam naa mm-hmm. parce mm-hmm. bu baax baax Mhm. war a teg si fii Sénégal képp am solo soo jaaxle il faut nga woo la ñoom ñu fajal la waaw kon dèjà ñooñu il faut ñu ñaan leen yàlla mhm. man ñu bëri si ma wooye dañu may wax ñaata ngay fayoo ko man la man damay ñaan loo jox weexal baax na parce que muur muur bi ngay ñaan tey jii su kontaanee la yow nga kontaan so mhm. loolu moo daax si ñaan sa gis nga ñaan kenn mënu ko fay si ko suuf jëflante nit ki jëflante bu rafet xameel bu mu ëpp lépp allu damay gis ne seen communication bay xam ne ñii sa ay durkale <laughs> mhm. parce que du affaire du wax dafa laaj nga jëf ñi ñuy gis ko am am mhm. solo moo tax euh, li ngeen laaj ni lu am solo la ah. ma doo bëggoon ngeen laaj parce que alhamdulilah mhm. waaye nag képp koo xam ñu la koy def ñu lay masaw ñu koy def nañ ko bàyyi sañ jéem a dimbaliwante ñu góorwaat ñu jàppal leen yàlla jëmal lépp si kanam incha allah tarkal joxal ma Baye asan Baye Assane sa mbokk sëriñ si laay wax dóor bi ñuy def nax yi ñuy nax sëriñ euh, kii moodu moodu yi dañ koy clamé yéen nag bokk leen ci mais il faut ngeen wax ci ndax yéen bokk ngeen ci ñu jëflanteeg ñoom ñu gis ci seen tawféex du ngeen ci bokkoon dinañ ñu ko clamé wax ñu ko te kon niin leen koy waxee sëriñ si nag ni ñuy wooyee ñuy dem di leen di defal émission man nag suñ ma clamé dinaa leen ko wax comme que yéen a mën a jottali man li dama leen a mën a poser question bi lañ ma wax ma rendre leen compte ngeen jàllale ko ana loo ci àddu waaw alhamdulilahi rabbil alamin mhm. comme doomu aadama moom su mu amee su amee yaakaar bu dëggu yaakaar boo xamante ni bu wér la mu ñëw jébbal la ko da ko war a traité traité boo xamante ni bu jaar yoon la. Mhm. waaye nag su nekkee da wax ne da ngay traité dossier jàmbur te xamoo dossier yi lu ñu ci bind doo ko a traité. dëgg la mooy ku ci nekk da dugg ci mbir moo xamante ni lu li ëpp ci nit ñi. te mënuñ mhm. ko dañuy dégg ni ñu dugg ci rek ñu dugg ci. Mhm. te jamono bu nekk rek yàlla day feeñal dëgg. waxul jaal xaq wasaaxal baatil innal baatila kaana saxuqan kaaba ga ñu ko tabaxee def ci ay xërëm yonentu sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee def ne yàlla mooy dëgg waaye seen yàlla yi ngeen créé laata ak usaata ak manaata du dëgg dañ koy effacé. Mhm. moo tax ba léegi yàlla moo fa nekk. Mhm. sëriñ ji nekk sëriñ sëriñ yombut. képp koo xamante ni yaa ngi uyoo sëriñ dafa am looy làmboo doog mën a nekk sëriñ sëriñ doo xëy rek nekk sëriñ. muy lan mooy dangay jub. Mhm. xam nga ku jub doo jubati. kuy naxan kuy naxante rek dafa jubati. dëgg te su la sëñ Cheikh ooyee ne dama soxla ci yow am na keneen ku ko am nee ko demal nga seeti keneen amaana nga dajeeg moom waaye bul ko oo bu convaincre ba mu ñëw teew loolu amoo ko moom mu toog di la xaar te du gis mukk nag léegi Sénégal maanaam daanaka naxante xaju fi. Mhm. ndax réew mu tuuti la te ñëpp ñoo nekk benn. Mhm. war a faa baax da wu ma xalaa baax din. Mhm. léegi nag su nekkee ne dafa am koo xamante ni dafa jog moom bëgg a yàq deru sëriñ ci moom mooy yàqu. ndax sëriñ su yëngatu ci alxuraan ku ci nekk garaat ba nga yëngatu garaat boobu moo lay aar ak mhm. alxuraan yàlla moo ko aar bon sëriñ buy yëngatu ci alxuraan alxuraan moo lay aar mhm. képp koo xamante ni nag yaa ngi nax bis dana ñëw nga weeru am na koo xam ne suy def lu bon du nangu ko nett li mukk du nangu ko fekk mhm. dafay am kersa nga baal ma doguma la daanaa dégg euh, Baye Barham euh, borom jaaro bi naan sëriñ dafa am këriñ am fëriñ am nga foog ne kon sëriñ siy dóor di naxaate ñoom fan ban catégorie lañ bokk këriñ lañ am na koo xam ne fëriñ lañ mhm. fëriñ moom danga koy gis xemem ko waaye bis boo jaxasoog moom su taqee ci miir bi trente minutes da ngay gis ne day wow sëriñ nag mooy koo xamante ni moom dafa dellu ci yàlla te lépp lu mu la wax su su coupé téléphone sax yow da ngay yàkkamti pour owaat ko ndax njëriñ li ngay gis ci moom dëgg la waaw jërëjëf acca joxal ma Baye Barxam ñu jàll Baye Barxam damay jàll ci beneen ponk mu di jigéen joo xam ne mës naa sëy mhm. euh, mës naa sëy nag mais dafa tas après bëggaat Euh, beneen bërëm kër mu jafe ko côté boobu loo ci fay àddu. waaw alhamdulilah <coughs> xam nga mbiram sëy moom. dafa bëri ay lu koy def. benn da nga bëggante nit mu dem yàgg ngeen bayan mu yàq la wala mu laaj la dootu am jëkkër. Mm-hmm. dana koy def. wala jigéen ñi xam ne xam nga jigéen dafa am ñett poison yu nekk si moom. Mm-hmm. dana toll foo xamante ni. Mm-hmm. yu koy bëgg bëri. moom dana toll foo xam ne moom day tànn. tànn toll foo xam ne danaa ku ñëw baax na ba moo gën a ba yàlla si am musal. moo tax sëy il ñu xool ñu koy déggee mooy sëy da nga xool ba pare soo ko dugg si sëy bi parce que euh, gis naa sax comme la seetloo na ma dafa gis jëkkër jeeg jabar ji safara ak ndox na ko sëy boobu du dem du sotti boobu parce que loolu mun nekk. parce ndox may fay safara. loolu mhm. sëy bi du ma am ne dafa sëy ba mu yàgg mu génn sëy toog lu ma 10 ans wala 15 ans mënta sëyaat. waaw soo ko béy salaam dinañ ko dindi. ak lu mu mën a parce que da koy xool ñun lépp lu ñu dugg. da koy xool ba pare. nga dem ma lépp lu ñu dugg mm. da nga pare mi ngi mel tey nga feebar am rek nga ne ko sama bopp métti tax ma gëm la de mu def mm. mu jafe ko du seet si woon waa Bayte Salaam du yàgg su ngeen jëflanteeg moom maam borom kër incha allah si kàttan borom incha allah te lu wax ni am na ñu may sala ñoo xam ne jëflaan na jëflaan na si ñoom am nañ juróom benn fukki at jëkkër taw lañ waaye alhamdulilah macha allah. du ndaw nag waaye comme que waxtaan la dañ lay expliquer pour ñu am ñu gën a leer beneen bi mooy jigéen ñi nga xam ne mënut a am. Mhm. borom kër. waaw am na jigéen ñoo xam ne koy mhm. def. waaw euh, góor goo bëgganteel. Mhm. mu ñaan la sama parents yi bañ mu def la parce que loolu ñu ngi koy liggéey si garab boobu. moo am na ñoo xam si lu ko defee du da nga wër sëriñ si ba sonn ba gis bu ko dindi parce que lu jafe dindi la bi def si garab moo gën a garaaw hmm? waaw moo gën garaaw parce que boobu su fekkee garab bi di dund lu naqa dindi la waaye su fekkee sëriñ bi ko man la moom naqatu dindi si moom su fekkee garab boobu boo xam ne dafa wow nekk si àll bi boobu tamit lu naq di dindi la bu wow yooyu waaw yooyu yëpp ñu koy ñu koy ñu koy liggéey si diiru 15 jours dindi léppam tàggata ko ba am borom kër wax jigéen ñi nga xam ne amul borom kër mu takku mm-hmm. soo ñëw benn salaam xam ne yàqi ne am borom kër euh, na la am quantité bu xaw a takk boo xam ne takk nañ si julli gi après mhm. ñu bu mooy euh, xam nga jigéen mhm. day tàmm waaw nag du alal sëy alal de sëy da ngay gore bëgg mais li ci ëpp jamono ji nag daa mel ni jigéen ñi moom ci matérialiste la ñuy doxee léegi dematul parce que même góor ñi sax xataa si góor ñi ñoo xam ne ñaan duñu takk ku liggéey cas social lañ lay wax duñ ko takk moo tax dem na ba jigéen ñi xam ko léegi dañ ñafe di liggéey parce que pour bëgg am jëkkër mhm. moo tax léegi daal euh, yàlla na yàlla musal si yooyu daal képp koo xam ne bëgg nga jëkkër wala ko bëgg soxna mhm. la joxal ma Baye Assane Baye Assane damay ñëw ci beneen ponk mu di jigéen jiw mos a am doom taxaw waaw mu amaat bëgg bëgg amaat doom nag te xaw a doon loo xam ne jafe ci moom am doom mm. taxaw luy at yu yàgg bëgg amaat doom mu jafe ko loolu ku ko yàlla nattoo soo tegee sa tànk bayt salaam mm-hmm. ñu ngi ci yaakaar yàlla te di ko ci óolu mm-hmm. te di gëm bunt yi nag bu baax te di ko yaakaar ne suñ jaaree ci bunt yi ñuy jaar mhm. incha allah da nga tijjeeku ndax wa atal bu yow tamit ab min abwaabiha mhm. néeg bu nekk dafa am bunt kër gi mën nañ ko tabax mu bëri ay néeg waaye caabi yi duñ bokk dëgg la caabi yi duñ bokk léegi nag secret su nekkee ne dañ la wax ne secret bi dafay faj biir bi métti waaw yow nga ne danga koy fajee doom du dem xam nga ñoom ñëpp ñu ngi dëxuñu ci biir mhm. waaye kii moom njaboot la bëgg waaye biir bi méttiwul Mm-hmm. léegi nag ñu bari dañuy jaawale lool te secret doo dajeeg moom ci mbedd mi rek jël ñëw ñu ne la tànk buy métti lay faj nga ne nopp nga koy faje dëgg du lool moo tax ñu bëri di ci laaj léegi képp koo xamante nii da nga doon sëy am doom mm-hmm. ñaar wala benn ba ci yàgg nga taxaw ak am doom ak am doom ñoom ñaar ñool ki tëë am doom kooku da nga koy rawaanam bi ngay xool ba xam rawaanam bi moo ko tëj nga xamante ni moom dafa bëggantee góor rek rawaanam bi ñëw attaqué ko song ko mën na nekk ngelaw da ngay waaj day jékki-jékki ba ci yàgg rek yaramam bi muy commencé di sentir muy diis mu jàpp wetami mhm. dana dem ba ci yàgg sax da nga gis ne naqam bi daf koy tëj mooy dem ba ci yàgg jigéen boo xamante ni suy gis mbaax sax dafay métti wala mu dem ba ci mbaax gi arrêté yaa ngi mhm. mën na dem ci moom dix ans mën na dem ci moom sept mhm. waaye loolu li koy waral li ëpp mooy rab moo koy def ba pare wala Euh, liggéeyu doomu aadama boo xamante ni daf la topp lu yàgg comme ni ko mhm. Baye Barham waxee mu dem ba ci yàgg amul ci yow résultat nag léegi mu am mhm. yu la def yoo xamante ni wàllu liggéey la mhm. loolu nag su ko sëriñ bi xamul su nekkee rab la mu ngay fajee liggéey bon du la gaaw a faj moo waral nit ti xaalisam dem jox ko nit fekk bunt yu bunt yuñ ko war a jaarale jaaraluñ ko ci bunt yoon waaw moo tax kuy jaar ci palanteer ak kuy jaar ci buntu du benn kuy jaar ci palanteer sa mbubb na xotti man nga dëgg fekk borom kër ga waaye su bi la soo fëggee ñu ubbil la da nga xam da nga mën a wax ak borom kër gi soo waxee ak moom su nekkee lu la bëgg a jox la mu jox la ko su ko amee su nekkee amu ko mun la nekku fi waaye soo jaaree ci palanteer bi sàcc lañ lay wax képp koo xamante nii nag yaa ngi yëngatu ci sëriñ mhm. ñi ñëw wax la mbir te amoo ci xam-xam ngir yàlla genn wàllu xam-xam mooy xaw ma ma imaamu Maalik dafa wax ne mu ne jàng na at yi bëri waaw waaye dafa jàng ñaari xam-xam la jàng teggiin mhm. waaye mu ne su yëgoon xam-xam yi mu jàng yëpp teggiin la koy jàng ndax teggiin mooy waral nit ki ki doylu mhm. mooy waral lu ñu la ko rek doo ci dugg képp koo xamante ni mbir yool dal na la. Mhm. soo ñëwee bayt salaam. incha allah ci kàttanu yàlla. Mhm. dañ la tijji su nekkee mosoo ko am dañ la xool sa rawaan bi su nekkee dafa doon yàqal dañ lay jubóole ak moom. ñu bëri maa ngi ñu dévier ne rawaan kenn du ko dindi ci nit. amul doomu aadama buy dem te xamoo raw te amoo rawaan. te rawaan ñu ngi ko bind ci ah, ngelaw kenn mënu koo dindi ci nit. déedéet dañ koy jubóole ak yow. Ah. waaw siburu bi nga siburu bi nga bi nga amee. Ah. kooku duñ ko kooku dañ koy seddal. waaye du nekku ne nit dafay rocc siburu ne mu ngi nii. ndax day yàqal nit rawxaan wala. rawxaan dafay yàqal nit am na boo xamante ni dafay jubale ak nit da ngay gis koo xamante ni dafay takk jabar rek ubbeeku léegi jigéen bi rawaanam bi moom moo am doole ba pare fekk moom rawaanam bi daf ko doon yàqal rawaanu jigéen bi ñëw not rawaanam bi moom moo tax kooku dafay ubbeeku am kër am oto di déplacé wu. am na jigéen boo xamante ni dafay tëju waaye dafay am jëkkër rek ba pare rawaanam bi tijji ko léegi nag yooyu yëpp su nekkee sëriñ bi xamu ko. moom da ci am problème ba pare bokkut ak jinne jinne moom li ëpp day yàqale dafa am yoo xamante ni catégorie jinne lañ ay jullit lañ am na koo xamante ni catégorie jinne lañ waaye duñ jullit hmm. léegi nag li ëpp ci ñoo xamante ni duñ jullit ñoom jamono bu nekk sooy jëfandikoo alquran wala ngay nekk ci musulman dañ lay faral di la yàqal moo tax da nga jàpp da julli da nga ñaanlu waaye doo gis dara léegi nag dangay dem ci sëriñ boo xam ne dafay tuubloo jinne boobu pour sujjootul ko mu gëm lislaam hmm. waaw ñuy woote jinne nag ay dañoo am ay kii jinne ay soxna jinne dañuy hmm. jëflante jinne te jinne ni ko waxee li ci ëpp dee yàq ñooñ nan la ñuy def ba waaw xam nga doomu aadama moo gën a màgg jinne man su ma demee bay takk jabar du ma takk jabaru jinne ndax doomu aadama moo ëpp pouvoir mooy xalifa yàlla ci kaw suuf jinne yi am nañu gëm suñ gëmee nag ñoo doomu aadama yi mën nañu yem ci catégorie ndax dootuñ yàq mhm. waaye sooy am jinne ban ban jabaru jinne nga am yéeféer nga am wala jullit nga am loolu dañ ko war di leeral su nekkee na da nga am jabaru jinne te yow mënoo ko tuubal kooku jamono bu nekk daf lay yàqal te moo la ëpp doole mhm. ndax ni mu lay ëpp doole mooy moo boo xamante ni lu mu la bëgg a yàqal jaar foo xamante ni doo ko xam ko mënee ëpp doole na fekk nga ragal yàlla di jaamu yàlla ba am sañ yàlla léegi nag lépp leneen loo xamante ni dafa ñëw rek mhm. danga koy mën a tuubal pour mu nekk soroon waaye dana dootu mën la tiim di la yàqal léegi nag loolu sëriñ ci bëri dañ cee am problème ba pare rawaan moo ëpp doole jinne mhm. ñoom ñëpp nag ki nga xamante ni moo leen seefu ko xuddaam lañ koy wax xuddaam dinaa koy leeral ci affaire politique bi. Mhm. waaye yaakaar naa temps bi dafa xaw a kii. Mhm. waaye incha allah képp koo xamante ni loolu jàpp na la. Mhm. soo ñëwee fii ci kàttanu yàlla dana dëñ. waaye loolu dañ ci leeral leeral goo xamante ni. képp koo xamante ni bëgg nga am doom. mu tëla soo ñëwee fii ci kàttanu yàlla da nga am doom moo xam da nga commencé woon taxaw moo xam mosoo commencé. jërëjëf acca joxal ma Baye Barham Baye Barham ci ay njàmbati feebar laay dugg nag nu mu ne feebar mën naa ne sini yaay yi léegi ak sini mën naa ne papa yi mm-hmm. ak même sini mag sax dañ koy jàmbat mu di tànk yu metti mm-hmm. ndigg luy metti mm-hmm. ana loolu wax béyte salaam nan ngeen ci mën a jàppale nit ñi waaw alhamdulilah <clears throat> feebar yi léegi moom bëri na trop li am na am am jafe-jafe am am ñoo xam am jafe tànk yu métti am ñoo xam ne seen biir dafa am ballonnement am na ñu am hépatite B am nañu yor tension am ñu yore jabet yoo xam ne ni seen maanaam seen ndox mëni moo néew. Mhm. wala mu yàqu sax day am. Mhm. dégg ñu am feebaru kàttanu sëy day am mhm. mais bu ñu si mën a doon soo ñëwee bel salaam ba suñ pare nag. dañu si xool ñu si jëfandikoo waaye nag tànk yi métti dafa bëri si jamono juñ toll nii. waaye loolu waxoon naa ak si am secret bu wér sax kilifa gu mag jox ma ko. ñëpp xam sax sa xol bi sedd la ma ko joxee sa mbënd xol bi sedd laa ko jëlee. sa ba ma ko joxee mu ma fekk maa ngi Ziguinchor dëkk laa tudd su ku may wax muy dégg mhm. ancien militaire la jaroon feebaru dégg ñu faj ko sonn maa ñëw faj ko ba muy dox ma mujjee dégg moo naan maa ngi dem entraînement mu nekk lu xam ne alhamdulilah sant yàlla bu baax la jur mu ñëw suma kër dañu ko jàppan indi ko waaw mënut a dox waaw kon loolu maam dafa nekk loo xamante ni il faut nit ñi bàyyi si xel mhm. suy ndigg suy tànk waaw maam faible euh, faible sexuel moom kooku peut-être bu mu nekk kii moom ñu bëri xam nañ ko mu la ñu wax bànneexu sëy bii nii Euh, pour ci néew kàttan lay dox. bii kàttan lay dox. hémorroïde mhm. ndoxu siti tension ak diabète ballonnement. nuñ koy jëlee employé. pour bu koy jëfandikoo mooy njëkk si biir moo mujj si biir. Mhm. donc utiliser mais bii bi amul morom bi moom ñu ko xam bëri nañu lool. Mhm. sunguf si amut benn effet secondaire yi. non ko bi ñu bëri dañ ma koy laaj ko ñu ko jot a jot xam nañ ko baax macha allah bii euh, alhamdulilah man mi wax dama si dama koy utiliser. parce que mais bañ feebar parce que kii day raxas si biir ba mu wecc waaw dèjà benn jàngoro si nekk. Hmm. kon loolu euh, képp kum daal daal ñëw ba salaam suñ ko xoolee pare dinañ si jëfandikoo yow incha allah sa nekkul xam ne dafa seetlu yomb la parce que lépp lu ñu dañ ciy bëgg a dëmal naa sànq wax si waxu jinne hmm. ah, na xul illi anu sama nafru mine jinni hmm. wax xulonge euh, bi rek falax misir maa xalax ba ba mu ne gént wa pare mu wax wala xadd karam ba bani aadama mhm. kon xam nga jinne ak doomu aadama soo xoolee seen pes seen poids waaye nag toujours doomu aadama moo koy féete kaw mais il faut nit ñi bàyyi si xel bu baax mhm. parce que junne gars yi dañu ko tudd nii rek mais ay parce que junne dëgg dëggan mhm. mag ñi bu njëkk amoon nañ ko kilifa fi mais nii jamono ji léegi kon li kii dañuy wax rek mais léegi jinne yi bëri ñoo ëpp yi bëri ñoo fa parce que euh, jinne gis ko yomb moom mën na la gis nag chaque jour yaa ngi seet moom parce que ñun ay silmaxe lañ si ñoom te ñoom dañuy moytu di jàll. gis ko yombut mais mënu laa gis. moom moom kon ñi naan ñi naan maanaam téye ku mel ni benn Modou Faye mbaa benn Pape di dóor di naan di dóor di sotti ay lu kenn xamut naan jinne ji laay génne kon loolu. génnewul dara day si boobu la nekk rek gars yi yu bëri seen bopp lay nekk rek. ah bon génnewul dara. juste dama ko wax rek c'est que c'est que yéen yenn clients yi ñoo war a am bay xees si doomu aadama yi parce que nit ku lay ñaanal. am na wax yoo xam su la ko waxee xam ne kii li mu wax gëmu ko amul pourtant ñooñu la ñeen ñi def ponkal de ñooñu di génne ay jinne ki ne dañoo am ay jinne parce soo la naxee dagan parce que nax la soo ko sa sàggantal mais nit dem bay ñàkk yor alal ba hmm. nga xam foo koy dugal may fan gis nga safoor bi su nekk si télé bi daw su gisul client du liggéey waaw bi su oto yi greffé mën a dem fenn day so hmm, hmm. kon sëriñ si ak client il faut moo tax lépp looy jëflante ci kër na ko xam bu baax incha allah. barkalla ah, am na solo joxal ma Baye Assane après ñu tàggatoo ndax euh, seen émission bi jeex na. ci néew kattan bi ngeen di def te doon bu doy waar Baye Assane Baye Barham ñëwoon na ci nga loo ci yaatal tëjee ji. waaw alhamdulilah mhm. euh, néew kàttan euh, kum dal mhm. soo doxantoo ba ñëw bayit salaam wala nga déggante ak ñun foo mën nekk ci àddina bi mhm. loolu dana tàggook yow ci kattan yàlla ndax li kay waral dafa bëri am na koo xamante nii dafay toog di fooye boppam léegi loolu dafay indi néew kàttan góor goo xamante ni dafay toog di fooy boppam moom kese. Mhm. beneen bi mooy su dee ci néegu sëy la am na melokaan booy mel. loolu dana indi néew kàttan. léegi beneen bi mooy am na lekk yoo xamante ni wala nit jox la garab goo xamante ni da nga koy utiliser nga doon da nga doon faju néew kàttan kooku dafa lay gën a yokk néew kàttan moo garab dañ koy traité. soo demee ci alxuraan dafa am juróom-ñaari aaya yoo xamante ni dañ koy tuddee kun bat yoxo samawaati wala isaa qadda amran fa innamaa yuqulu kun fa yakun mhm. inna masala xeesalaayi inna masala xeesahin dallaayi ka masali aadama xalqu min turaabi suma xaalaloo kun fa yakun ba juróom-ñaari mat loolu dafa am juróom-ñaari garab yooyu dem ci àll bi nga composé ko ak moom soo ñëwee juróom-ñaari fan nga koy liggéey léegi juróom-ñaari fan yoon da nga gis ne da nga def juróom-ñaar juróom-ñaar ba mat fukki garab ak juróom benn léegi yool ngay jël nga composé ko mhm. boole ko ak saafara yool ak juróom-ñaari ay yool moo wax la ku jàngal xuraan xam nga li ma lay wax mhm. su ko defee yool da ngay ñëw téy sa kuréel gi di ci ñaan yàlla di ci ñaan yàlla ba yàlla wan la ci ne loolu kun day am mhm. su ko defee yoolu nag moom ngay jël su dee càngat la am na bunt yooyu jaar pour def ko su dee ku néew kàttan la am na bunt yooyu jaar dootu ko dal mhm. loolu nag su nekkee xamoo ko gis nit ñi teg sunguf rek nga teg sunguf man mhm. nga jël sunguf boo xamante ni dafay lor nit te loolu mhm. di ko wax nit kan kay wax na ragal yàlla su ragalee yàlla rek donte xamul ko sax mën na tëdd yàlla wan ko lii faj feebar bi waaye su nekkee naxante nga ci dugg rek do dem doo dem dañuy wax ñu ne bi ñuy jàng ci daara ji benn waaye dafa doon wax mu ne ku bàyyi sa kër ba ñëw xamal na lekk indiwul la fi xamal ne sangu indiwul la fi li la fi mooy sangu bu mu la teree jàng lekk bu mu la teree jàng mhm. ndax du rey kenn waaw moo tax yëpp maa ngi leen di dénk mhm. ne leen ku ñëw bayti salaam sa aajo dana faju jërëjëf waaw acca mën a tàggatoo waale waaw alhamdulilah jërëjëf ñu mhm. ñu ngi gërëm waa site bi deux cent vingt euh, yàlla bu baax di ñaan réew mi waaw euh, bëri na ay lëndëm lëndëm yu mu gis nag daanaa gis ay déeg yooyu mais bii dafa lëndëm tërës dèjà Hmm? soir mu am ngelaw lu garaaw luy waaye ji ñëw loo xam ne nii dina xaw a jaaxal réew mi ni mun naa mu ñëw parce que lëndëm bi jamono ji réew mi lëndëm na bon tur deret yi la accident yi bëri la xamal la waaye daal lëndëm na waaye yàlla na ko fi yàlla jëlee si yàlla borom réew mi ngay président de la nga xam ne moom la ko yàlla dénk yàlla dimbale hmm. sam ñu bàyyi ñu xel parce que ñun ak ñoom benn lañ da nga dégg ancien président da nga dégg ancien ministre. Mhm. da nga dégg ancien waaye doo sëriñ mukk ci ko suuf. moo tax il faut ñoom ñu bàyyi ñu xel baax parce nekkul loo xam ne dañuy génn di wax rek déedéet du loolu de duñ jàng la gëstu ko ba pare di si di si jàpp doomu aadama yi ñu leen gërëm bu baax. jërëjëf allah.